wasalaatu wasalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci suratu ibrahim di fukkeelu saar ak ñeent ci alquran ginnaaw bi ñu génnee ci suratu raad ñëwoon ba àgg ci fukki aaya ak juróom-ñaar fi suñu boroom tabaraka wa taala di waxe naan yatajarracuhu wala yakaadu yusiiquhu wa yatiihi almawtu min kulli makaanin wa huwa bi mayit wa waraihi azabun xalis tey ñu war a doore ci kàttanam subhaanahu wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett mathalu alladina kafaru bi rabbihim acmaaluhum karamaadin ishtaddat bihi riixu fi yowmin aasif yàlla subhaanahu wa taala bi nga xamee ne nettali nañu ci bind bi weesu taxawaayu yéefér yi ci kanam yonent yi aleyhimu ak la nga xam ne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ci seen jëf yu ñaaw yooyu su àllaaxira mu ngi ñuy saddal mel ni misaal mu am solo ndax misaal ciy njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor craie di rëdd ay fas walla ay nag walla ay xar ngir wan dongo yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom dangay gisit looloo jur lu ñuy wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tëkki sax wa bu llahu al amthal lil naas laallahum moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaare baatu kafaru weddi ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhaanahu loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawaatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellusiwaat siwaat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen merendeku defoo loo ñu tus su nga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da wax defuloo ñu dara yàlla nee na ma mathalul ne misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yére di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax doomu aadama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkatee am am may kooko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni dóom dóomu taal doo mu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp loolu mooy doomu taal doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy doomu taal te kilo doomu taal mi ngi jar trois cent soixante quinze mille ci misaal benn kilo doomu taal wala sax man nga ne mu ngi jar benn kilo doomu taal ñetti million mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko kooku di ko ko dencal ànd ak jenn waay mu jàppale ko mu yéeg bi ca kaw teraas ba mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg ndax kilo doomu taal dafa seer ba mu ko dencee foofee te teraas bi lu ko war lépp amul ay birig yu jóg dafa maasaloo ba mu ko defee rekk rek det mu daal tar bi bihi ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li ngelaw li tar lool mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg fii yawmin aasifin ci bis bu mbooya bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak callemer callemer mooy ngelaw loolu nga xam ne day werangiku tey dem day werangiku tey dem te léeg-léeg buy dem buñ ko séenee muy werangikoo càmmooñ ñu ne jinne yi jinne yi lu dul jullit la buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi jullit la loolu dañ ko daan takk waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf-jëf yu baax amaaluhum seen jëf yooyu lu mu bari bari lu mu rafet-rafet karamaadin mi ngi mel ni kii denc doom bii istaddat bi riixu ngelaw la tarca nag ca denc ba fii yow min ci bis boo xam ne aasif bis bu càllmeer la ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom ñu ne tey la ñuy jënd doom bi ki koy jënd ñëw na waa ji na ah, man de dencoon naa juróomi kilo yu doom ñu ne ko ah, juróomi kilo yu doom kilo bu ne ñetti million yow de nar nga am xaalis fukki million ñett de war nga koo am waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko ba ñu ñëwee daal yàlla nee na laa yaqdiruuna amuñu kàttanu dajale mimma kasabu ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa ala shay'in ci dara dara dara wallaay ndeysaan mu yëg fekk cal mer la yóbbu na dóom ba ngelaw la ñëw buub la ca des mu agsi fekkuñu fa ala in ci dara dara waaw mu ngoog mathalu acmaali alkufaar allati camiluuha fi dunya yabtaquuna biha al ajra min sadaqa wa silati rahim wa gayriha mathalu ramadin asafat bihi riixu fa jacalathu habaan manthura nun rek lay mel ndeysaan moo tax kuy jëfal yàlla ku nekk dangay defar sa bopp ba nekk ku gëm laaj nag ñam daan jëfloo nañ daan defe ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex moo tax mu yebal ab yonent salawaatullahi wasalaamu ne def leen ni muy def ni muy def laa leen defloo ku defut ni ma ni muy def la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def yàlla nen zalika lii day li dal kii huwa dalaalu moom moo dig sànku albaidu sànku gu sori yàlla nu ci yàlla kon lu lay suratu ibrahim aaya fukk ak juróom-ñett tabaraka wa teg ca alam tara xanaa gisul wala alam xanaa gisoo yow gisuloo ni ann allaha yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan kon kuy jëf danga war a jëf ngir kooku rek wal arda moo bind suufi juróom-ñaari it kon kuy jëf danga war a jëf ngir kooku rek te nag bil xaqi ci dëgg la leen bindu ñoom ñaar asamawaat yi fu ko alxuraan waxee rek daf koy def ci jamcu li ngeen di wax yeen pluriel wal arda mu def ko moom benn ndax asamawaat ni ñu tegaloo bokkut ak ni mu tegaloo al ard juróom suuf lañ waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tappi asamaawaat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan moo bind juróom-ñaari suuf bi àq ci dëgg aha kay in yasha bu ko neexoon in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñu fi nekk ñépp wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees bi xalqin ci mbindeef mu bees ibnu abbas mu ne yu mat yu miitukum yaa machar al kuffaar wa yaxluqu xawman xayrakum xayram minkum wa atwa zaadul masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñu koy weddi indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon yàlla wax na dëgg xalaqun jadid moo di fi ne ku ñuy wax al bashar wala al insaan moo ne ci kaw suuf moo fi moo fi moo fi seef waaye bu neexoon yàlla mu jële fi ki ñuy wax insaan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insaan muy xalq jadid waaye bu ko neexoon ñi koy wedd ñépp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooña wa ma loolu nag nekkut bi azisin di lu jafe alallahi ci yàlla wa ma loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azisin di lu jafe alallahi ci yàlla subhanahu wa yàlla ne na ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn wa barazu ñu génn lillaahi ngir yàlla jamian ñoom ñépp yowmal am mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej gi lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk wa barazu ñoom ñépp ay génn buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn ña ca des duñ génn waaye wa barazu alburuz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee danga nga ñëw wa barasu lillahi jamia ñépp génn ñi amoon doole ñi néewoon doole ñiñ doon noggutu ak ñi leen doon noggutu ñu daal taxaw ci kanam suñu borom ña daan noggutu tey amuñu kàttanu noggutu ñañ daan noggutu ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu ndax kanam suñu borom bu ñu fa taxawee dañ dootul tanente kenn ku ne danga saña a wax lépp loo bëgg a wax ndax yàlla dafa maandu ku bëgg maandu la bi bu nit ñi taxawee yomal xiyaam lu waaye bëgg a wax rek sañ ko wax am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi waaye bu ñu nekkee yomul xiyam lu ne lu ne nit sañ na ko wax moo tax léeg-léeg mu nett lañu ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga naan ah waaye noonu la de bu yomul xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax déglu li di wax fa qaala di wax aduafaa u ñenee woon doole bañ leen doon noggutu ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu te àdduna si nag daanaka loolu dafee bari ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole naa ñun ñii dey kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp naa nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp lu ngeen ñu mas digal ñu ànd càkk yéen lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi yéen mustakbiroona yii nag nga xam ni yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk xaada ñun de yéen lañ doon topp yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp léegi nag dañoo am benn laaj bu ñu leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole malaaka yaa ngi taxaw jinne yaa ngi taxaw suñu borom subhanahu wa taala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku safan safa wa ji a yawma isin bi jahannam ñépp yi déglu duafaa yi daat ne mustakbiruuna yi fa hël antum mu ndax yéen muxnuuna an na man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen muxnuuna an na dangeen ñu fegal min azabillaahi ci mbugalum yàlla mi min shay'in ci dara loolu la gaa ñi laaj mustakbiruuna yi waaye fii bari ay min min azabillaahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoon ak benn waay mu tiim juróomi tàngal boo ne ko jox ma ko mooy tàngal ji lépp la la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox muy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooye ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbëggalum yàlla min shay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu mbug ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum muxnuuna anna azaballahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min shay'in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ un pour cent un pour cent sax bëgg nañ ko xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynaakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynaakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynaakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tont laa ngi noonu moo tax kon fii li alxuraan di waxe bu nit nekkee ci ak njuba di waaye waay gaawal bàyyi ko ca njuba dem te jéema a xeeñtug njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar oto bi dem ba Cees mu jàdd watuk ndeyjooram jëm ca boori course ba da nga naan ko ñun ndar leen jëm mu ne waaw toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari dangeen di lank loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki ne ci aw yoon foofu ngay jaar ak moom moo tax borom dar yu téere bu tuuti boobu te dégg arab lool te mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy dangay roy boroom xam-xam yi dangay roy kon ki topp sunna waaye booy laaj nga laaj boroom xam-xam yi wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam boroom laxdar yu nee booy laaj nga ne xam mu laajal boroom xam-xam yi sooy roy mu ne mun ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax boroom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduuna bi sunna qaalu law hadana allahu buñ yàlla jubaloon la hadaynaakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ca ëllëg la leen sama borom tabaaraka wa taala di dencal ñu teg ci ne sawaawun alayna moo yem ci ñun ajasiix na ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkam gee muñ moo képp maala na mi maxis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaa ñi dañoo daal toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole tabari mu ne in ahla nnaari yajtamicuuna fa yaqulu bacduhum li bacd innama adraka ahlu ljannati bukaa'uhum bi bukaa'ihim wa tadarrucihim ila allah fa tacaalaw nabki wa natadarac ila allah fa bakaw fa lamma raaw anna zalika laa yanfacuhum qaalu tacaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura mithluhu fa lamma raaw annahu laa yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasina am sabarna tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawar ñoom ñépp ñu tàmbali di jooy mu ñun fun jëm ñu ngi alku lakk gi métti na mbugal mi métti na dañoo xiif dañoo mar woy jiit yi métti na woy jaane ñiy matt woy suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ci mu mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëriñ kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñu onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer ak kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxis duñu am benn rawukaay suñu boroom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina mu ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maa la naa duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja su ko defee kon noonu ko tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jaza jazau xams miati am wa sabaru xams miati am ci saddul masir xatum ñetti téeméer ak juróom fukk juróom benn ci jukkim ñeenteel ba ñoo ngi ci suratu ibrahim ci aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne iblis laanatullahi alayhi dana ko def su yowmal xiyaame def ko benn mitin bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daañu ko fekke képp ku ànd ak iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi maxfalil ashqiyaayi fi jahannam yàlla nañu yàlla musal ci daje boobee ba bu ñu ko fekke waaye fi ne mi ngi ci campagne bu rëy moom iblis ndax bu sañoon mitingu culture am boobu bu sañoon dana fees dell dell aku te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen yi dangay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante nit ñi di gën di jege seytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk fu gën a bari aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li mu ngi góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yow xiyaam du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appareil laag ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële ñu booloo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jaww ji du ko dugal ci sa appareil bi nga di ko dégg yi tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appareil loola la yàlla yi dindi bu yom la xiyaamee te mooy li la ci jawwu ji te war koo laxasu ak li nekk tàngoor jant weer yu demee nekk yooyu yépp day dañ yom la xiyaam moo jumi ashamsu wal qamar su boobaa kon du jar kenn yi teg appareil fu waaye nekk ku wax nga dégg ko allahu akbar moo tax ngay dégg axaan wanaada asxaabu naari asxaabal janna ak yeneen waa a woowaa aljanna waawaa waa aljanna woowaa sawara te booba buumi téléphone yi du fa am rajo du fa am télévision du fa am te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88 point 9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am te du tee ñu déggante ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ceew loola mooy dañ bu yomal xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp dégg ko ñu ne yàlla waaw léegi discours ba lan lay wax lan lan la seytaane nar a wax suurat ibrahim aaya ñaar fukk ak ñaar waxaale seytaanu seytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne àtte nañu al amru mbir ma ba ñu àttee ba noppi groupe bii war dem sawara groupe bii war a dem aljana groupe bii jëm laaraaf groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñii am nañ vingt sur vingt bay ramm ñi am dix-neuf ñii ba ñu am douze ba onze yépp dem aljanna waaye nag duñ bokk ay aljanna nag ndax nangami aljanna ñu am ñi am diis kese wala diis virgule cinq kese te amuñu ñu leen ramm ñooñ ñépp ñu yóbbu leen la araaf ñi am ay neuf ak sept ak jëm trois yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin ñooñu kenn mu leen ram ramm nag ànd ak seytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn tirbin bu mag daat ne inna allaha waadakum inna allaha yàlla dig bu dëggu seytaane mu ngi wax nag discours bi mu ne ba ngeen nekkee àdduna yàlla daf leen a digg bu dëggu neleen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la ku ma mooy boo àllaaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la loolu la leen yàlla waxoon ci àdduna wa tukkum man seytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na man leen waaw dekki am na waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te dangeen a am ñu baax yéen kenn dem sawara ci yéen ndax boo defee nangam dem aljanna boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu ne fa axlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon allahu akbar fu ñu ne woddu leen rek seytaane ne loo ciy woddoo sipp moo xew bu ñu ne soccu leen seytaane ne déedéet socc buy jar vingt-cinq moo baax nga xam ne dangay ngay kosug almet def ca di ñoddi moo tax ba nga béb socc ci biir nit ñi ñu ne dindil waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du la wax dindil seytaane jàpp nit ñi noonu boo ne meew mu ne ah yow daal meew amul solo daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gaññi lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waadal xaq dig bu dugg wa tukkum mayit ma dig leen ah fa axlaftukum ma moyloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige te soo seet loo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig wa tukkum moom ko fi waadal xaq ndax moom xam na ne yorul dara moom seytaane yorul dara li mu bëgg mooy jëmale gaaña fa mu bëggoon ñu jëmale rek lam ne woon la na aqudanna lahum siratakal mustaqim bi mu waxee lii nag ci meeting bi suñu borom tabaaraka wa taala ne ko may ma ci misaal daal koy tontu ca suuratu suuratu yaasin ñu daal taxawal waxam ci taxawukaay boobu sama borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani aadama an la taabudu shaytaan yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen bu ci kenn jaamu shaytaani mi doomu aadama yi daal di sëgg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwu mubin waxoon naa ne kii moom rekk ngeen am cib noonu amu kenn kenn cib noonu ku dul kii ñu ne ah kay wa ana abuduni xanaa waxuma woon ne jaamu leen ma man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mi boole ko ci jaam gi ñu ne ah kay sa siraatu mustaqim xanaa yëbalu mu woon ab yonent bu ñuy wax mu sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi nit ñi ne axakay yàlla ne waaw wala qad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw mu ne la waaw afala taaxilu xanaa jëfandikoowu wu leen woon seen xel nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadun sawara ma doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mu ngi nii mooy wa waada wa waadakum ji ma wax léegi kuntum tuwaadun islawhaa al-yawma bimaa kuntum takfurun aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ña daal di yooxoondoo sarax ñu sarax ñu sarax ñu mu ne al yawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gémm ñépp lay tëj seen loxo yi wax ak man tey allahu akbar yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gaa yi duggee sa sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suuratu mulki law kunna nasma'u aw naqil maa kunna fi asaabi sair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraatekat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga <laughs> bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay awma woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn benn bat benn anam te du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna man daal amu benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illaa an daawtukum lu dut ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk dafa bakkane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkalla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad xaab man dassaha waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gaa yi nekk ay jàmbaar mu ne illaa an daawtukum lu dul ma woo leen léeg la ma woo leen ci ndë ci ci tama ngeen ñëw léeg-léeg ma woo leen ci ndënd ngeen ñëw léeg-léeg ma woo xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen wuy si ma fastajabtum lii ngeen wuy si fala taluumuuni bu ma ci kenn yedd nag bu ma ci kenn jàll baat mu waluumu anfusakum yeddal leen seen bopp laa tarjicu bi lawmi alayya al yawm walakin luumu anfusakum fa inna zamba zambukum déggal rek ñàkk ngor gim leen jaay bu ma ci kenn jàll baat kuy yedd na nga sa bopp bàkkaar bi du sama bàkkaar man tey seenu bàkkaar la yéen man waxoon lu leer la àqu dana lawum siraatakal mustaqim yéen a ko gëmutoon rek maa ana bi musriqikum man munuma leen a mu ne nit man munuma leen a xatili ci sawara wa ma bi musriqiya yéen du yéen may xatili kii xatilee du yéen du man ceet maa ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya mënu leen maa xettali mënuma leen a ay ma ana bi muqiisikum wala antum bi muqiisiya min azabillah inni man seytaane seytaane mu ne inni man seytaane kafartu weddinaa bés naka tey bi ma ashraktumuu ni cala la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu tey soo seetee bindu na alquran bi ma tumu ni ci riwaaya xafs mel ni mënoon na ne bi ma tumu nii waaye bo arab boo waxee benn baat ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom danga koy moom ashraktumu nii kon da koy moom waaye ginnaaw day bañ ne def luñ ko dara mu ne far bi ma ashraktumu ni min waaw ndax buñ la ji ñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junni jàmbur nga ngay ngay lànk di lànk mu yàgg nga ne waaw léegi danaa ci avancé juróomi junni wala boog junni ñu ne akkoon ah ngay yow a moo tax seytaane fexe ba waxul bi ma asraktumoo nii mu ne bi ma asraktumoo ni min qablu ci bindin ñu bind téere bi tabarakalla seytaane mu ne leen inna zaalimiina bokkaalekat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañu jàll musal xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu naari fi lawmi iblis wa taqriihi fa yaqumu fi ma baynahum xatiban bi ma axbara anhu alquran ba dema ca alfaqaru raas yi jukki fukk ak xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe naka noonu ba demee ca alxasan mu ne iblis yowma alxiyaama xatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alxalaaiq jamian bi alqurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñett ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettaliwut loola fii moom daal def ne wa uddu xela ñu daal di dugal allazina amanu ña gëm wa amilu saalihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min taxtihaa caron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidiina way sax lañu fiihaa ca xéewal googee aljanna joojee bi izni rabbihim ci seen ndigalu boroom taxiyatuhum seen nuyoo nag fii fiihaa ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa moroom assalaamu aleykum déedéet salaamun xawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yàll na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéeyi duutoo julli duutoo woor duutoo sonn duutoo ñaq duutoo xiif duutoo mar jàmm mënut a taweesu loolu yàlla nañu fi yàlla dugal yàlla tabaaraka wa taala nettali kon ña ña gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwul ko moom it waaw ña des àllaaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj moo tax fii yàlla bu waxee allasina amanu la wax fan jëm ña ca nag ñooñu moom alxuraan daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakalla jàlluñ ci yàlla musal alam tara xamoo alam tara xanaa gisoo kayfa daraba llaahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci suurat Ibrahim aaya ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tëralee mathalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayyibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàq bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaa i ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñiy jëmbët ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax ma xóot ñu fab garab gu baax def ca biir dangay daal di gis faruha fi sama car yi jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj tu ci di indi ukulaaha meññitam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rak walla kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndéglu boroomam subhaanahu wa taala baat bu baax it nuun la mel moo di soo waxee baatu yiw baat ba day daal di jóge fi nga nekk law daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiinin bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi mel nii ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër a cere wuti asamaan di mel meññ waxtu wu nekk wa yadribu llaahu l amthal yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi laallahum xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna ñu waaru wa mathalu kalimatin xabiisatin misaalu baat bu bon nag wax ju bon ka shajaratin xabiisatin dafa mel ni garab gu bon garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat dañ la jox garab gu lax barki démb bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat ba mu demee uctu sat dañ ko duut rek duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jal ko ci ba mu fees fab nag ak garab jëmbat ca noona mu naan tegg ca kaw rek min fawqil ardi ci kaw suuf rek noona la garab gii mel maa la min qaraar amul benn ndëgër lay maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay wax ju ñaawit noonu la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër lay boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek wax ju ñaaw saa boo ne ki ko wax foo ko déggee day wax dama koo dégg rek ci gaa yi ngay topp ba doo xam ne kenn waxu ko seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi wax ju ñaaw noonu la mel moo tax wax day yiw baax teey wax ju ñaaw la yàllay misaal fii yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg ji yuthabitu llaahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi ko gëm bil qawli thaabiti ci wax ju sax yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thaabit ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illa allah wa alal xayaati fiha wa alal imaani fi hasil saxal leen ci yàlla ñu ci yàlla saxal sax moo di liir bu juddu dañu koy wax ci ay noppam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy génn àdduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi nga dégg ay mbokkam na ci wetam di wax laa ilaha illallah léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah yàlla ñu ca saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca yuthabitu llahu yàlla mooy saxal alladina amanu ñi gëm bil qawli thaabiti ci wax ju sax fi l xayaati dunia ci dunduk àdduna gi wa fil aaxira su alaaxira it nag moo di fil qabri hadis ba nee na al muslimu isaa suila fil qabri shahida an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu taala yuthabitu llahu alladina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunia wa fi laxira hadis boobu axrajahu al muslim firin wii it noonu la tabari firee wax jooji dul yudlillaahu yàlla sànq azaalimiina bokkaalekat ya wa yafalullaahu te yàlla mooy def maa yashaau lu ko neex yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jotee alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati nicmatallaahi xéewal yàlla yi yàlla dana xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan santuñu ko te waxoon na keroog ne la in shakartum bu ñu santee la azidannakum waat na naa leen dolli ñii nag santuñu ko waaye baddalu dañoo weccax ndikoo ni'amatallahi xéewale yàlla yi kufran ci kéefër wa axalloo ñu wàcce nag xawma xawmahum seenu nit daaral bawaar kërug alkande baat bi ni'mata moom la olof daan wax mag ñi bu daan jàng ni'mata taajoor ndax nii nga gisee ñu bindee ni amata miinoo ko woon bu fekkee riwaaye xafs nga yor ndax taa majruur lañ ko bindee muy taa boo xam ne dafa tàllalu fukki ni amata ak benn ñoo nekk ci alxuraan yuñ bindee noonu ñu koy tuddee ni amata taajoor mag ñi daañ ko wax sàppoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn baqara al maayida ibrahima ñaar naxli ñett luqmaan fatir ak tuur muy fukki ak benn ci ni'mata lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xë lañ koy binde boo xam ne bi day am ñaar tomb ca kaw mag ñi daan ko wax ni'mata taajoor am na it rahmata ak sunnata ak yu demee ni ko yooyu xëy na buñ ci toll daañ ko jéem a indi alam xanaa gisoo ilal lasina ci ñi nga xam ne baddaloo soppar ci nañu lay xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar kërug alkande kërug alkande jahannama kërug alkande googu jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcce daaral ba waar wa bi sa naqari na alqaraar soxwaay boobu di jahannam yàlla ñu ci musal kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi agsi nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañu koy taxawal ñi ngi jégglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi ñu ngi ñuy bind tabaarkàlla waxtu bi moo dul may ñu lim leen waaye bari nañu lool ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alxuraan ñenn ñi ay sëriñ lañu tabaarkàlla ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkàlla tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi bokk ñëpp di yàlla di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp ki doon def tafsir bi di seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarala suñu mbokk Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu yi nga xam ne moom la somb dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salaamuhu alayhi mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquranul karim bi leen rajo Dunya di defal ajjuma ju jot ci waxtu wi xam ngeen ne bind bii weesu ñu ngi taxawoon ci aayab ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye bopp gi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci aayab ñaar fukk ak juróom-ñett muy alam tara ila allazina baddalu ni'matallah suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ni nga xamee ne noonu la benn xéewal yi faye suñu borom tabaraka wa taala neneen lu bokkut ak ni ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg su xéewalee nit mu sant ko ci xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu dina lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ni def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mu ngi aajowoo ca araf wane ca kanamam tey nag ilal lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ilal lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccax ndiku dañoo soppi nicmatallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dañ ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkane ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suul jëf tax na ba ñoom loola seen mbokk ya daaral bawaar ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu amin wa ayshahum fi saa wa fihim muhammadan sallallahu alayhi wa falam yacrifu qadra hadihi nicma wa kafaru wa kazzabuuhu fabtalaahum allahu bil qasdi wal jadd nee na waa makka salawaatullahi wasalaamu alayhi ñi feeñ ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la dafa leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawaatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawaatullahi wasalaamu alayhi jiiñ ko lu nekk yàlla tabaaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbu te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg bi sa bon na naqari na alqaraaru saxukaay boobu di sawaraw yàlla nañu jàll musal nee nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye bu ñu ca dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yu gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu joggi fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawar woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ ci yàlla musal wa jaalu ñu defal yàlla andaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla andaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu masilina abaduhum ka lu yudillu naasa an dinillah ba ñu jéemee wutal yàlla ndend lu tax li yudillu ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabilihi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ni ñoom la ñu wutal ay ndenn suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñii wutal yàlla ndend tamattaawu bànneexu leen lu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masirakum seenu mujj yéen ñu wedd yàlla ñépp ila naar ma nga jëm sawara yàlla nu jàll musal képp koo xam ne kii weddi nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génnee àdduna rek booy sukkuraat sax tàggoog bànneex fa inna masirakum ila naar te salawaatullahi salaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ca sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow mosoo bànneexu ndax naqari yàlla nee xool waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne amanu gëm nañ waxal ma leen ne leen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi na gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu farataal ci ñoom di ko jooxe alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu wu jot nga defe ko ni la neexe yow mooy waxtu wu jot nga defe ko ni a sharia santaane loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnaahum ci liñ leen wërsëgale waxal nit ñi ne leen buñ taxawle julli ba nag leen yàlla wërsëgale nañ ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnaahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loola la jotut yàlla sant jullit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan koy def ci lu aw nit yëg waa wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxin woowu moo gën a rëy wa alaaniya wu feeñ bi baax na ndax dana soññ ñi daawul joxe ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaala jafar joxe mu ne waaye ci mën di ngeen def yooyu taxawal julli ak joxe sirran wa alaniya min qabli balaa ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa bayun jënd amu jaay amu fa ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yawmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëg mën naa ñàkk am looloo tax mu ne yawmun laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amut it lu ñuy jënd wala xilaal amut it xaritoo dem ba yawmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wiiw dangay defe ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp koo ci xam ne kii ña ngi koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofe ñu ko fay fase mu des naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googee moom day continuer yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ba mu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcce wa maa xalaqtul nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan nee na moo ko warloo